abi xurayra dafa soppoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam sopp gu di sopp yonent bi lu yonent bi wax rek mu mokkal ko mooy ki ëpp lim netti la ci ay addis yaayam nag bañ yonent bi lool bañ mu ànd ak yonent bi yaayam di ŋàññ yonent bi rek ba am bis boo xam ne nii yaayam day ŋàññ yonent bi di ko xas rek ba ab abi xurayra muntu koo muñ di sàmbalee jooy di sotti ronkoñ dem ci yonent bi ne ko allahuma ne ko yow yow bi yàlla bi udduhu li ummi an yahdiha allah ñaanal ma sama yaay ji yàlla gindi ko mu tuub yent bi tàll loxoom ne allahuma ihdi umma aba hurayra yàlla yàlla nga gindi ndey abu abu hurayra bi waxee loolu rek abu hurayra dellu ci këram ma nga bàyyi woon yaayam muy ŋàññi yant bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dafa dugg ci kër gi rek dégg yaayam naan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah bokk na ci jagle yonent bi sallallahu alayhi wa mooy lu masa laal wala mu jonjog loolu loolu ak coppi ko am ca nag sëñ Tuubaa daal doon na ko ci xoolal am na fas boo xam ni Abi Talha moo moomoon fas wu yéex a yéex keroog ma ko yonent bi sallallahu alayhi waree fas woowu moo gën a gaaw ci fas ya nekk ca Madina li ma wax ku dem ci Buxaari ak Muslim fekk ko fa xoolal Xaalid ibnu Walid jàmbaar la woon jàmbaar joo xam ne nii xeex bu mu mës a dem rek gañe xeex boobu xeex bu mu mës a jiite gañe ne xeex boobu nekk dafa am secret bu mu yoroon moo mbokk yi bari na lu murit yi def ñu leen ciy diingat te am na cëslaay ci diine ñoo gëstuwul ñoo leerluwul abi Hurayra kii Xaalid ibnu Walid guerre bu mës a dem rek moo gañe guerre boobu waaye nekk dafa amoon ab secret mooy dafa amoon kawru yont bi sallallahu alayhi wa ñaw ko ci mbaxanaam saa yu dem xeex sol mbaxana moom li may wax ku dem ci téere bu ñuy wax Ashifa muy téere bi gën a see bu gën a wér ci téere yi siire yi te xaadi xiyaat def ko ca ca passe 301 da nga ko fekk ba tey xoolal asmaa bintu abi bakar doomi abi bakar la amoon na mbub moo xam ne nii yont bi sallallahu alayhi wa moo ko moomoon asmaa nee na mbub mii yonent bi da ko daan sol mbub mi nag maa ko moom ginnaawam waaye mbubb mii saa yu ñu amee ku feebar mbub moomu dañ koy xocc ndox jox ndox moomu ki feebar mu naan ko wala mu sangoo ko wér lii ko dem ci saxiix muslim da nga ko fekk te moo ne bu ko murit defee de ñu ne biddaa la wala ñu wax leen bokk na ci jagle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo jël desetu jàppam sotti ko ci ak ab teen teen booba ndox ma bari lool neex yonent bi mas naa tifli ci ab teen bu nekkoon ci kër anas ba ca yonent bi tiflee teen boobu moo moo moo mujj nekk teen bi gën a neex ci madina mas naa romb am ndox laaj ci lii lan la ñu ne ndox mi kat mi ngi tudd bii saan ndox mi kat daa wex xat ak xorom neexul de yonent bi ne bis ni ko tey sopp naa tuddal leen ko naxmaan walla nuxmaan daan ne ndoxam lu teye la ndox ma soppali ko di ndox mu neex mas naa laal ci bopp ibnu xumayr ibnu sahdin masaa ci bopp ba rek ibnu xumayr moomu xumayr ibnu sahdin moomu dem na ba am juróom ñett fukki at soo ko faatu musta bi jaaw ndax yonent bi laal gi mu laal kawaram lu mel ni lii nettali nañ ko ci ñu baree bare ci sang bi ku mel ne Saïb ibnu Yasid ak Madluk am na ku ñu daan wax xutbata ibnu farxaat dafa am xet bu neex gu daan xeeñ ci moom nga xam ne moo gën a neex xetug parfum ay soxnaam te loolu ko jëlee ci yonte bi dafa laal dafa raay biiram ak ginnaawam ci la jëlee loolu am na ku ñu wax xaysu ibnu saydin aljisaamiyu yont bi da koo ñaanal masaa ci boxam dem na ba am téeméeri at boxam boxam yépp bi jaaw ba mu des fa yont bi sallallahu tegoon loxoom moom itam ñuul kukk lu mel noonu yont bi jaar na fi ak ku ñu wax omar ibnu sahlabatal aljahaniyu xoolal ku ñuy wax xantarata ibnu hadim yont bi sallallahu alayhi wa dafa mos jël loxoom teg ko ci bopp xansalata ibnu sahim xansalata ibnu sahim mujj képp ko yor taab wala nga yor néew wala tànk bu néewi wala gàtt bu néewi boo ñëwee ci moom fa yonent be raayoon ci boppam lay teg foofu néew rek néew néew ba bokk na ci jaglay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ku julli ci moom julli googu day am malaaka mu ñëw ci yonent bi jotali ko ne ko diw doomi diw diw julli na ci yow moo tax ku bari looy julli ci yont bi ñu bari lañ lay tudd ci yont bi waaye nag saa yu nit sëlmale ci moom ne assalaamu aleyka ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi taala wa barakaatu sun borom day delloo yont bi ak ruuxam mu delloo la nuyoo loolu yont bi moo ko wax ma min ahadin yusallimu alayya ila radallahu alayya ruuxi yi xata araddu alayhi salaam moo tax assalaamu aleyka ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatu ku koy wax bis jot téeméeri yoon sëñ Tuubaa nee na métitu sukuraat doo ko mos te it ay problème ay jafe-jafe àddina doo ko am bu mukk ñu ko xam-xam nañ ko li ma wax nag ne maa min ahadin yusallimu alay ila radallah alay ruuxu hatta arabdu alikram abu daawad netti na ko boo demee ci as silsilatu sahiha bi albani dafa da nga ko fekk mu wéral ko fa moo tax yonent bi nee na yàlla am na ay malaaka yoo xam ne dañuy wër ci biir ci kaw suuf ku mu nuyu rek ñu jottali ko nuyu boobu ku julli ci man rek ñu jottali ko nuyoo boobu yont bi bokk na ci ay jagleem mooy bu yemal xeyaamee moom mooy njëkk a dekk bokk na ci ay jagleem moo gën a rafet ci nit ñi moo gënoon a tabe ci nit ñi moo gënoon a jàmbaare ci nit ñi xali ibnu abi taalib moo gënoon a jàmbaare fopp daraan wax góoroo góor maa man ba benn bis yont bi sallallahu alayhi wa sallam ko beneen melo dab ko ci xur wi ne ko ali looy wax mu ne góoroo góor maa man Seydina kooku ne ko kaay ñu bëre bu bëreeg moom yëkkati Aliou teg ko ci suuf Aliou xam ne leer doole nu bu ba rek moo ko mën a daane ma xam ne kii mooy yonte bi Aliou soppi la mu doon wax naan góoroo góor maa man ba mu des ko ma xam bokk na ci jagle yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mboolem yent fi nekkoon seen sariixa dañ koo man suuxal dañ koo folli dañ koo supprimer sariixa sidna Muhammad moo fi des ba yemal xiyaam wa baaxin sharhu fi kulli waxtin ilaa yawmil xiyaamati wan warti xaali bëy du ne xoowu te mooy bëy woowu mooy sarixatu seydina Muhammad moo fi des ba yawmal xiyaam yonte yàlla Isaa su wàccee tamit nga xam dana wàcc ci mujj jamono ci sarixa seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lay nekk lii nag mi bokk ci jagle yont bi gën a màgg ndax fa inna sarixatuhu nasaxat jamihu sarahi ma istimraari ilaa yawmil xiyaamati sarixa seydina Muhammad lislaamam jii dafa folli mbooleem tarixa yi tarix yi dañ ba bis penc bokk na ci jagle jagleel Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ko jag li ko sunu borom jagleel ci jëmmam ak ci melam ak ci ay jëfam ak ci xeetam moom rek la yàlla jagleel mu mos a xar weer wi iqtarabati saa wan saxal xamare xar weer wi weer wi def ñaari ñaari xar yonent bi rek moom moo ko mos a def yonent bi rek moo mos a woo garab garab gu wuyu ko yonent bi rek moo mos a téye ay xeer tibb suuf suufu sàbbaal bàyyi may di wax ak moom baaraamu sànqaleñ bii ndox mu neex di ca xellee ba nit ñu baree bari naan ca ni ko sëñ Tuubaa waxee ci jas bu wan fajara ma un namir min yaddi di takkarumi waaye bokk yi bañ a guddal tax waaye jag li may wax yi ci ëpp sëñ Tuubaa donne na ko ci yont bi sallallahu alayhi wa sallam ngir da koo doon ci maqaamal muhammadiya doon na ko ci maqaamal ahmadiya moo tax wan fajara ba un nam yi min yeddi di takkalo mi sëñ Tuubaa wax ci jës bu nga xam ne baaraamu sànqal yonent bi saxaaba yi dafa ànd ak bi ñuy dox am yàgg ñu mar maru metti amuñu ndox baaraamu yonent bi ndox di ci génnee ba saxaaba yëpp naan ca waaye mbokk yi suñu jàmbaar ji cheikhul xadim mas naa toog ci njaarim taalib yi di jàng xasiid ak jasbul xulóob ba àgg ci wan fajara ma un min yeddi si takori mi sëñ sëñ Tuubaa dafa coppoon jublu penku di déglu jàng mi bañ accès foofa rek baaraamu sànq lañu sëñ Tuubaa ndox mu neex tàmm di ci génn ba taalibe yi ñëw di ci tànk di ci naan bokk na ci jaglay yent bi mooy xeer yi dañ ko daan nuyu minha salaamul ajari xaleyhi masu sajari lahun sixaaqul xamari bisil baqaa wal xadami kaana yasilluhul xamaam yaraa amaam wa aynuhu kaana tanaam wa qalbuhu lam yanami ni ko sëñ Tuubaa waxee gis bu loolu yëpp ci ja yont bi nga xam ne weñ daawul ci yaramu yont bi sallallahu alayhi wa bi sallallahu alayhi loolu ci jagle yont bi sallallahu alayhi la bokk bokk na ci li ma wax léegi bokk na ci ay jagleem mooy Seydina Mohamed gis na boromam ci àdduna te loolu moom rek moo ko jagoo bokk na ci jagle yonent bi moom rek la suñu boroom lënkale turam ak turam nga xam ne benn nit balaa kenn dugg ci lislaam faw nga tudd baatu Muhammad faaw nga ne ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah loolu moom rek moo ko am loolu mooy moom rek la yàlla jagle noddu doo ca dégg turu kenn bu yàlla weesoo lu dul turu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa loolu mooy wa rafahnaa laka dikraka suñ borom di wax ci alxuraan te loola moom la Sëñ Tuubaa tëgg ak salaatu naan allahuma salli wa sallim ala sayidina wa mawlana muhammadin allati mananta alayhi bi sharhi sadrihi kama xasamtahu wa rafaxtahu bi jaxali dikrika muqaarinan li dikrihi salaatan wa tasliman yeni xaani bi jinaa bin alayhi ba tey xar googu ñu xaral yonte bi salla sa weer wi moom yonent bi moom rek moo ko jagoo ni ko sëñ Tuubaa waxee gis nga lahoon si xaaxul xamari bisil baqaa wal waaye boo demee ci futuhul mukarram fii am ndaxil mukarram Cheikhul Xadim mi ngi naan suqa li tasdiqin lahul lahul xamar wa daaka maa waqa xatun li basar suñ borom xaral na ko weer wi ngir dëggalal ko te loolu benn nit mosu ko am allahu akbar moo tax ci futuhul mukarram sëñ Tuubaa nee na yonent yonent bii nga xam ne mooy bàyyi ak mooy bàyyi xaasim am na ci ay may yoo xam ne nii mbindeef yëpp buñ maasoon di ko lim mënuñu koo lim am na ci ci yàlla lam doon sàkku ak lam sàkkuwul yàlla jox na ko ay xéewal yoo xam ne nii xalima ak daa mënu fi koo lim yàlla jox na ko loo xam ne nii musta rob ci xelu doomu aadama te du rob ci xelu doomu aadama yàlla war na ko ay mbóot yoo xam ni malaaka mosu koo gis yàlla mi aji màgg war na ko loo xam ni sama way yii lott naa ci lim ko mbokk yi bokk na ci jagley Seydina Muhammad sallallahu alayhi mooy yàlla jox ko xarkanam gu leer naññ ba gën a leer weeru fukki fan ak ñeent ni muy leeree xar kanam mooy xar kanamu yonent bi sallallahu moo ko gën a leer Seydina Aysa radiyallahu anha mas naa toog cib néeg yorub làmp yor pusa di waaja ñaw làmb ba fay pusa ba wadd ci biir ci suuf si dajanteeg Seydina Mohamed dugg si ci néeg bi leer xar leeru xar kanamu bi salaama moo leeral xaysa ba mu gis pusam googu ci lën googu moo tax Sëñ Tuubaa nee na muhammadun axjarat anwaaruhu xamarin wa kullu samsin xawat fi dawi apaawu leeru yonent bi gàccal na weer ak bépp jant bu am ak leer moo tax nabiyuna lam yakun sarwaahu fil xudama wala yara sarmadan fil xalqi sarwaahu yonent bi ku mel ne moom amul ci ñu jiitu woon te deeful gis ku mel ne moom ci biir mi ndeef yi moo tax mu ne wàccu nabiyil ab tax yi ax jalaa badru yaddin waxat kafaadi wajalaa xar kanamu yonent bi gàccal na weeru fukki fan ak ñeent moo tax mu wax ci lam yabdu lii baana kawnul Moustapha raïsa li kulli man xafsatu naar uusa mooy samsu sumuus yi mooy rex sur uus mooy bopp bopp yi mooy jant-jant yi sëñ tubaa ndëggum lii teg na ko ci doq mboolem gaa yu baax yi xadamataahu fawqa kulli raqaba minu istihaaral qurra kulli man xaba jikko ju baax ju ngeen ma mën a gis ci waa ju baax da koo abbee ci yant bi waaye ci yant bi la dëkk moo tax ku mel ne moom amul te musta am suñ borom nammul ku mel ne moom te ku mel ne moom suñ borom du ko namm moo tax ak càng ak baraaxa moo ko am keroog kañ la ko am yow ma àla suura ne si fa am sëñ Tuubaa nee na ku mel ne moom amul si ñu weesu amul ci ñuy teew te du am ci ñuy ñëw kawe na ñu jiitu woon kawe na ñu jëkkoon ak ñu mujjoon mooy taaru ñu mat ñu ñi mboolem yent yi lañ bëggoon yant bi yàlla yi moo ko am yàlla jox na ko loo xam ne kenn mësu ko am te kenn du ko am ba mukk sëñ Tuubaa ko wax akramahu llahu bi ma lam yakuni wala yakunu abadan li mun ko nii nee na mooy sangu bépp arab mooy sangu bépp ajam moom rek moo mel ne weer nit ñëpp mel na biddiw xoolal na ko sëñ Tuubaa di mel ne ci raay yi xasiida gu neex googu nga xam ne li ëpp ci murid yi xamuñu ko xal bi loo fi xitaamin gis mi takkaraaru li annahu lil hudaa wa nuuru jaraaru xaside googu nga xam ne sëñ Tuubaa ngi tudd kaxbun ak xasaanu ak busayru kaxbun wa xasaanu wal busayru xat baron wa kulluhum siiruhu nuurun wa asaaru sëñ Tuubaa leen ci ñoom ñett te la tax sëñ Tuubaa leen ci ñoom ñett mooy dafay def tatmiim ñoom ñett raaya day senteesu ñetti xasiida yooyu muy xasiida kaxabu ak xasiida xasaan ak xasiida xasiida nga xam ne mi ngi ciy wax naan bi jaahi man xaysuma saaraatu xaaraboo samsun tuxaaribuha fi sahwi aqmaaru aw annahu indahum fi ma yara basarun baharun xawaalayhi abarun adhaaru mu anhaaru mu ne yonent bi sallallahu alayhi nim mel ak gaa yu baax daal day mel ne jent jant bu jege aw weer wala nim mel ci biir gaa yu wax yi mooy géej goo xam ni ay teen ak ay dex dañ ko wër mu ne weer am na leer bu ñuy leerlu waaye day fekk jant feeñul lil badri nuurun xasimun yusnaaru bihi laakin isaalam yakun li samsi azharu allahu akbar bokk na ci jagleel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi musta am ker takk ndeer yonent bi musu ko am lu tax ngir leerug yonent bi dafa not leerug jant bi ñun ñi dañuy am takk ndeer ndax leerug jant bi dafa not sunu leer moo tax ñuy am takk ndeer yonent bi nag ak leeram dafa not leerug boppam moo tax du am takk ndeer li may wax ku dem ci duru samin da nga ko fekk sëñ Tuubaa tëgg ci ak salaatu nga xam ne dafa wax ne daa mel ne leer yont bi daa mujj nekk xijaab kiiraay ci leeru jant bi sëñ Tuubaa nee na bokk na ci yëgle yont bi mooy musta tuur ndox fenn ba bàyyi fa jeexantal buy tuur ndox rek suuf si di ko mëdd sëñ Tuubaa nee na bokk na ci yëgle yont bi yox weñ musta tong ci kaw yaramam bokk na ci jagle yont bi fu dóol musta koo dal yont bi musta bébli musta bébli yonent bi musta aw fas musta war daaba daaba jooju di maam xoolal keroog ba muy rañaan ba bëggee war alburaax alburaax xawa a bajantu jibril na ko alburaax amal ak teggin xamal ne ki gën ci mbindeef yi moo nar a sa kaw alburaax na nemm bokk na ci jagle yonent bi te mooy ay bëtam mu ñu daan gëmmu waaye xolom daawul nelaw waaye nag maqaamu moomu sëñ baa doon na ko ci nee na alxalbu mi nii fi sal yow mi xat salima min kulli raynin wa bir rahmaani xat salima sama xol man sëñ Tuubaa mucc na ci bépp ci bépp raynu raynu mooy nit ki bu defee bàkkaar day def ab tomb ci xolom kàllaa ba raana xalaa xulo bii makaano yegg si boona sama xol mucc na ci raynu yooyu te sama xol xam na suñu borom àgg ci naw mi ibaadatu rabbin laa sharika lahu xal bi yu dabbiru ayan turusul xikama sëñ Tuubaa na samay nelaw jaamuk suñu borom la mi nga xam ne amul bokkaale damay nelaw sama xol di setantal ay aaya yoo xam ne dafay jur xikam bokk na ci jagle yont bi sa alayhi wa sallam isaa jalasa bayna xawmin kaana katifaahu ahlaa minhum bi su ma saana toog ci jotaay mbaggum yonent bi mooy gën a kawe mbaggum ñëpp waaye bu ma sa ànd ak ay nit di dox mooy sut ñëpp loolu Sëñ Tuubaa wax na ko jës bu téere bu neex boobu téere bu yéemu boobu téere boobu nga xam ne lépp loo ci gis Sëñ Tuubaa wax ko ci yonent bi ab addis bu wér la ku dellu ci téere yi fekk ko nga xam ne am na ci aw bayit boo xam ne nii ci jës képp ku fekkee ab rob fu ñuy suulee nit nga jàng bayit woowu waa axalu bu dinañ dinañ teew ca rob boobu nga xam ne day xëcc xol yi jubleen ci yàlla mi xam yi fàddu yi nga xam ne ku koy jàng rek sa saxal ko faaw suñu borom xamal na ci yu fàddu yi lu suñ ci waa wax ci jës bu kaana yettoolu kulla man maasaahu fi kulli samaan yonte bi comme sa doxal rek àndandoo ngeen laa ngi dox yonte bi moo lay sut loolu ci ay jagleem la wa kaana waasiwal atan yadhaku bi tabasumi bokk na ci jagle yonte bi sa alayhi wa sallam mooy leeram la yàlla njëkk a bind leeram googu su jotal suñu borom juróom-ñaar téeméeri at suñu borom sottee bind leerab aras leerab kursi leerug xalima ga leerug jant ba leerug war a euh, weer wa leerug malaaka ya bokk na ci ay jagleem moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak leeram moo tax sunu bët yii di gis moo tax sunu xel yi mën a xalaat wa xussa bi annahu allati min nuurihi nuurul absaari wal xaqalati fi ruusul xalaayisi wa nuuril maarifati fi xolil muridina moo tax sëñ Tuubaa nee na sunu borom jagleel na yonent bi ne ak leeram ak taaram ak rafetaayam moom la ñuy gis ci bépp leer ci bépp taar ci bépp rafetaay moo tax képp ku siyaare ab yiw ci waliyu yàlla bu mën a doon war ngaa teewlu ne yaa ngi tëbb ci xadratu sayyidil wujuud si tamaam wal kamaam moom rek la yàlla jagleel saa yuñ ko tuddee te julliwoo ci moom toskale ñeen na la sëñ Tuubaa na ci kanzul muhtadin ruqima an fu rajulin zukirtu indahu falam yusalli alayya te lii addit wér la moom rek moo jagoo fuñ ko tuddee te julli ci moom yaa raw arfagon arfagon ñu jàng tubaab xam ne ko mooy ki gënoon nay ci àdduna bi arfagon yonent bi nee na albaqiilu kulul baqiili alladi sukirtu indahu falam yusalli alayya ki gën a nay daal mooy ki dégg sama tur te julli ci man yonent bi suñu borom jagleel na ko ne képp ku dégg aw turam te julli ci moom sëñ Tuubaa nee na mooy nga yoonu àjjana te lii ab hadith la boo xam ne sëñ yonent bi moo ko wax sëñ Tuubaa indi ko ci biir Kanzul Muhtadin man zukirtu hindahu falam yusalli alayya uxtiya bihi tariqul jarati bépp mbooloo mu toog ba jóge fa te julli ci moom seen jataay boobee pertaa nga lay nekk ëllëg donte dugg nañ àjjana ngir leen di raw ci tiyaabo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na fépp fu mbooloo toog ba jóge fa te julli woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa bu ñuy tàqalikoo seen xet ga mooy gën a xeeñ xetuk mënt mbokk yi bokk na ci jagle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ay jagleem bokk na ci ay jagleem keroog ba suñ borom mi minde suñ maam Adama te génn ci ginnaawam mbooleem ay sëtam képp ku nar a juddu rek ak ñu juddoon ñépp suñu borom génne leen ci ginnaaw mam Adama loolu mooy ci xaalimu zurra suñu borom waxanteeg ñoom alastu bi rabbikum ñëpp na cell suñu borom ne alastu bi rabbikum ñëpp na cell suñu borom ne alastu bi rabbikum ñëpp na cell keroog ka njëkk a toon suñu mooy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu Tuubaa man xat ajaabi yow ma alastu awala xabla zawi takallumi nga xam ne bayit wii moom ak xasida gi bayit wii sëriñ Tuubaa keroog man man ko def keroog ci xaala mu surra keroog ba yonte bi di tontu naan balaa ci la sëriñ Tuubaa defar bayit wii moom ak xasida gis ba keroog it sëriñ Tuubaa nee na la yonte bi xam ne man mi mbir la loolu mooy lan sëriñ Tuubaa nee na ba suñ borom waxee alastu bi rabbikum alastu bi rabbikum ñaari yoon kenn tontuwul nee na maa ko yont bi ne ko neel balaa yont bi ne balaa ma lënkal sama kàddu ak kàddum moo tax suñ borom dane Seydina Muhammad tànnal saw xeet tànnal saw xeet ci biir xeetu tànnal tànnal saw xeet ci biir bindeef yi Seydina Muhammad tànn xeetam ba àggal mun na sëñ Tuubaa yow kat bi yont bi di tontu yaa tontu woon ànd ak moom kon yow itam tànnal say taalibe danaa la yónnee ci àjjana bool la faak ay nit tànnal say taalibe sëñ Tuubaa nee na ba ma jugee damaa fekk la yonent bi tànnoon ma tànn ci biir tànn yonent bi sallallahu alayhi wa nee na keroog la yonent bi xam ne man mi mbir laa sàkku suñu borom ma nekk xadimam raama rasulullahi ilaahi kaw nii xadimu abdul kaw kon mbokk yi jagle yonent bi limoon naa ci lu mat téeméer te yaakaar naa li ma ci wax juróom fukk lay toll waaye dafa mel ne waxtu wi da dab nañu kon foofu rek lañuy dog kàddu gi di wax ne daal moom Seydina Mohamed turam ñu ngi ko bind ci aras bind ko ci biir ajjana bind ko fépp laa ilaha muhammadu rasulullah sëñ Tuubaa nee na nit ñëpp nag ña ngi daw di wuti ngëneel waaye ngëneel ma nga campé ci rasulullahi nee na kiltaa yeddahi lahaa saxin tulaasimoho baslun wa baxsun liman laanoo wa man jaaroo bokk na ci jagle yonent bi sun borom julli ci moom te loolu moom rekk la ko mos a defal kon mbokk yi dafa mel ne li ñu waajaloon ca ci waxtaan wi jeexul waaye dafa mel ne li ñu amoon ci waxtu jeex na kon ñoo ngi ñaan jataay bi suñ borom wettilee ko sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw ci suñu biir ànd ak ñun ñuy ñu di ko gis ci suñu botu xel ci suñu botu xol di saafoonte moom ci suñu loxoy baatin te yàlla dolli ñu gën koo sopp te yàlla dolli ñu gën koo ormaal te yàlla dolli ñu gën a topp am ngiram te ñu xam ne sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom sëriñ Tuubaa kum teg ci kanamam kenn du yow mbokk yi ku nee war a fonk yonent bi sallallahu alayhi waaye ñun murit ñoo ci raw ndax fa ko sëñ Tuubaa teg sëñ Tuubaa àgg na ci de damaa bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa bëggeel koo xam ni tax na mënutuma xam cas ko suukar ba suukar dootuma safati dara nee na ba ma àggee foofu nag la ma yonent bi feeñu benn bis ne ma yow sëñ Tuubaa bis ni ko tey damaa ñëw dina la xamal yow sëñ Tuubaa ne la man yonent bi dama laa bëgg bëggeel koo xam ni bëggee wu ko sama bopp man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal dina ko jërëjëf keroog yonent bi olof la ko làkk li may wax nag du waxee daanakat ku dem ci téere ba muzakkira bi sëriñ si la bind sëñ si la ibnu uxtu sayxi la bëkki néegu sëñ tubaa la nekkoon njaareem yaayam jigéenu sëñ tubaa la nee na sama téere bii lu ma ci bind maa ko déggee ci sëñ tubaa du lu ma nit detluwaat lu ma ci bind maa ko bindee maa ngi ko doxalee ci mbindum sëñ tubaa kooku moo nekk li may wax kon wa axiru daxwaana an alhamdulilahi rabil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh auzu billahi min asheytan rajim inni sabika rabbi ansatini wasubika rabbi yahdurni allahuma salli ala sayidina walana muhammadin saabil kawsar wa sallim alayhi wa ali sahbi wa sallim jaay kullu ma sabab ni tadjikar siyaare mbokk yi fi teew yëpp sang si taalibe yi soxna yi ak gone yi dëkkandoo yi ak waa dëkk bépp di am cant xol gu néew ci ma war yëkkati sama làmmiñ war ko cee génne ndax lii day lu mat sëkk te ñun ñuy ko manqué waaye ñu ji ma dawal suñu yéene rek xam naa sama xalifa bi mu tudd bis bi dama bëggoon sedd lenn rek ay kàddu yoo xam ne mel ni mbir moo xam ne séq nañ ko ba tax mu tudd ko bis bii dana bokk waajuru góor bokk waajuru jigéen yàlla def moo mag ci njabootu sunu waajur yi ci doomi bàyyi ak doomi ndey yi ma gis ab taxawaayam ci man ak ci ñëpp ñu mbokkal waajur góor ak ñu jigéen ma bëgg koo ma tëddoon ko bis bi bëgg koo seddal mbooloo mi ndax gërëm gu ma ko sant gërëm gu ma ko gërëm ak bëgg gu ma ko bëgg ak ñeewant gu ma ko ñeewant ak ñee gu ma ko ñee itam ci yoon woo xam ne jaar na ci ma xool ci kaw suuf gisuma ku ma gën a kaweel ma ne naa ko di bis bi nga xam ne bisub alquran la bisub xasaid la bisub sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bisub lislaam la itam ma jàpp ne kon naa awma lu ma gën a rëy loolu naa ko di bis bi ci fàttali ko rek bu may doog a jóge ca daara ja rek la ma daal di woo taf ma ci boppam yàlla def mu daal di am ñaari boutique yoo xamante ne suñ wan nijaay moo ko joxoon mu tabax ko mu dem ba mu dem ba ca kaw mu ne benn bii yow laa koy sarceel nga war caa liggéey par def bi ni defaraat marché bi yooyu jamonoon ko toj loolu daal di fànq ma jóge fa sama mag joo xam ne moo bokk moo sës ci moom jël ma ñu ko seex gaynde faat suñu seex gaynde faat ma mu jàngal ma ñaw li ma jàngal ñaw ba yàgg sama beneen doomi baay ji tudd Mënjaay Binta jël laaj ma sama baay yóbbu ma Casamance Ziguinchor di ma di ma jàngal ñëw foofee may jàng ñëw ci Ziguinchor ma yàgg ma jigi fa ba mën faa ñëw ba beru fa ñëw fa ñaari weer kese laa fa beru jigi fa xaw a ci réew Afrique yi dox ci juróom-ñeenti réew ci Afrique de l'Ouest 1982 80 84 ma ñibbi 82 ma ñibbi siwaat bi ma ñibbi siwaatee Mbàkke mu téye ma ne ma yow de li ngay dox daa bari lool dama bëgg toog daal la bëgg ci yow dellu téye ma di ma jàngal oto ba ma mën a tas oto defaraat ko ba yàgg ma jóge fa ñun nag daaw ñu raw ay Touba Mbàkke dañ daa jënd dugub rek dem dindi bugul gi di ak jolof di jaay di yóbbu ceeb di dellu siwaat bu bu demee dindi bugul gi buñ fa jógee demaat jolof di yóbbu ay ceeb noonu la doon def waaye daa nekkoon Touba Mbàkke boobu 1983 mu jàngal ma oto boo mën a tas oto defaraat ko waaye yàlla def kenn ku ne lan la sunu borom bindee 1983 ma ne ko daal neexul ba neexu waaye <laughs> danga may bàyyiwaat ma doxantu ci waat rek man doxantu daal laa man jamono yi sax dem na ba xaw ma mel ni daal man damaa jëmatut fenn ndax ni mu demee yéene di mu am ci man ma jóge fa dem ndakaaru nekk ca marché Colobane boobee dafa ambulant samp fab daayira maa ko doon sëñ Jibi Kaañ sëñ Taalu Siise mi ngi toog ci jataay sëñ Mbay Géey ñu samp fab daayira 1984 jamono si Abdu Ahad gut ay xasaayit di durus ba ma fekkee Ndakaaroo xam ne man mii maa ngi ci xasaayit yi 1984 mu dellu téye ma téye goo xamante kenn mësu koo gis di jóge Mbàkke di ma fekk ndakaar ci suñu daayira ba di ma sant di ma gërëm di ma soññi ñu dem ba ay 1990 mu yëkkati ab taawam jox ma ko taawam bu góor dellu yëkkatiwaat ka ca topp joxaat ma ko dellu yëkkati ka ca toppaat joxaat ma ko yëkkati gono yu jigéen yi jox ma ko fam njaboot gépp dénk ma ko far muy ànd ak man ñu dem Porokhane suñu mun taxaa jox na këru xasaayit ñoo njëkk am këru xasaayit kër na suñu Malick Ndiaye ca Daaru Mannaan sëñ Abdou Hakim jox na këru xasaay goo xamante ne mën naa ne murit yi Sénégal yëpp kër googu mooy seen kër xasaay foofu lañ daa dajee mu dikk nag am nañ këru xasaay foofu la ñuy màggale moom mu di ma fekk foofee di màggale ak man bi ñu njëkk a toj xel koom bis bi nga xamee ci la njëkk a dem xel koom song songu liggéey bi ci otoom marwa dàq ñu ñu daw dellusiwaat fabuwaat wut ndox ak yi mu war waxtu wii lañ dugg xel koom gisuñ kenn ñuy daw ba yàgg ñu daj ak sëñ Mourtala Mbàkke moom sëñ Fallu ci digg àll bi mën nañu sëñ Saalu wàcc na ñëpp di déwén maa ngi moom ñu ànd ñibbisi bi ñibbisee laa dem Kolobaan daal ne gis naa jëmm joo xamante ne war nañ koo teral ñu ne ma jën jëmm la ma ne sëñ Mourtala moom sëñ Fallu Mbàkke ndax sëñ Saalu mooy sëriñ Touba te sëñ Touba moom yëkkati liggéey jox ko sëñ Modou Moustapha Fadilu sëñ mu tax fàllu jox na ko sëñ mu taxam sëñ fàllu bi ma ci waxtaane ñoom bàyyi ji bi sama mbokk yi nekk Colobane ñoom Talla Cissé ak sëñ Mamour Gueye nooru daara yi mi jiite suñu daayira bi loolu dañ ko rafetlu at yu baree bare bari sëñ mu taxam sëñ fàllu day jógee fii ci Touba ñëw di nu gane si ñu koy ganale at yu baree baree baree baree loolu jaxasoo gu ma jaxasoo ak moom ak yóbbu gu ma yóbbu xel ko ba ma tasee sëñ mu taxam loolu moo ma ko may fépp foo bisu màggal gu mag yi 1986 di fanweeri at si ren laa ànd ak Abdou Fall mii Abdou Fall ñëw na fi léegi jóge Mbàkke 1980 fanweeri at la ci ren ñuy dox ci màggal gi ba jàg ba àgg ci sooroor boo xamante mooy sooroor bi féeteeg sëñ Saliou Mbàkke ma ne ko Abdou Fall mu ne Mbàkke mu ne ko fii neex naa màggale lu mu xumb-xumb mën nga fee def loo bëgg a durus ci xasaay mën nga ko fee durus ca kenn du la yàqal ma yenn faa moom ba tàkkusaan ñu ñibbisi ma dem dakaar wax ko sëñ Mamour Gueye seen tàll si si mu jiite suñu daayira sëñ bàjji bi kan ñoom ñu ne ma foofu nan fa dem ba màggal ga del see ñun dem màggal fa ñun ñeent ñooñu añuwuñ fa añ daawuñu añ ban delloo Dakar gars yi ñoom ñi sëñ Mamour Gueye ñoom ci daayira bi dajale mboolem daayira bi leneen déwén am nañ fu màggale foofee fi toll ñaar fukki at ak juróom-ñett yoo xam ne ña fay màggale ñu ñii kenn ko ne day fab sa añ di ko fa yóbbu ca barab boobee mu toll ci ñaar fukki juróom-ñett daayira bi daana dajale am ñaar nag rey ko berne xëy di jàng xasaay jàng alxuraan berne lan fay nekk ba jant bi so foofee nag li ci xew damaa tënk rek waaye lenn la mën naa ci dugg su waaye damay tënk rek barab boobee nag ren da ca àgg foo xam sama xol dafa sedd ci moom sedd goo xamante ne sama xol man na mësta sedd noonu ci kaw suuf ndax jotumaa dem ndax sama gan yu ma yu ma bari xaw gan yu moo xam ne xaw na maa tënk ba mënumaa dem ñun dañ daa bàyyi suñuy gan di màggali foofee waaye nag gaa yi dañ maa jéggal léegi ne ma say gan ëpp na la doole léegi del màggali sa kër rek ak coono yi itam ren ñu jiite daayira bi mu def ci taxawaay boo xamante ne ñëpp nen ma si Modou Ndiaye sama giide yi gërëm nañ ko sant nañ ko mboolem daayira daayira Masaalikul Jinaan bu Colobane bii sant nañ ko gërëm nañ ko ci ñoo ngi ko ñaan ndax boole nañ ko si biir ndax jëf na jëfin yoo xam ne mbàkke lay def la ca war benn yëg gën a màgg mbàkke ba la koy liggéey ca moo ko indi ci otoom mu toll ci ñaar fukki at yoo ñett muy dox loolee ci sama jëmm ji moo ko waral ah sama jëmm ji moo waral muy def loolu waaw di ma fonk di ma fonk di ma yërëm di ma teg ci ay yoon yu bare bare bare yoo xamante jataay bi moo ko may waaye ci gàttal daal ku mat kilifa la koo xëy ko koo xëy ko ko ñeewant laa koo xëy ko ko bëgg laa koo xëy ko ko teg ca kanam laa itam mu ànd ak soxnaam aji njaay aji njaay mooy soxnaam soxnaam ku ne wax suñ ma njaay bint mooy baayam waajuram ma njaay bint ma sama baay ñoo bokk ndey ak baay aji njaay la baayam yar suñu ma ma njaay bint yenn woon di root yenu ñëw ci kër suñu mag bi gisul ko ko yenn suñu mag bi yenn ko sëñ Fallou ne ko duttuñu la yanati ku sëñ Touba yenn kenn duttu la yanati loolu kenn ba nga koy denc si mut bu sa jàng seere na ko loolee ñun nag ñuy waa kër si maanaam aji njaay moomee ñu dëkk muy koo xamante ne dama ne ko mësumaa gis nga yëkkati kàddu jëme ko ci man wala nga yëkkati kàddu jëme ko ci keneen doon na man doon néew moom amul de waaye du man gis tëgguma sama dégguma ko lu mën a xew daal aji ndànk lay dox ndànk lay wax mag ko seede ne ko itam doomi ndey ak doomi bàyyi kenn ku ne toggal nga ko yekkal nga ko waaw am na jamono ñun ñi ku ci deful dara itam ak kuy def dara ñëpp a ci yem ngir li daal sëñ du Ndiaye moo ko yore ku teel a aw suñ baay la suñ baay ku teel yor njëlul suñ baay la ci koo xëy daanaka xawu ko man sax mu yor ko yor ko bu rafet suñ baay gërëm ko gërëm gu wér-wér mu ne ko nag la ma rawoon sama baay lépp fas naa ko dabu ci yow loolu am naa sañ-sañ bi ndegam damaa bëgg lu baax ci kaw suuf aji njaay mii nag gone yi ndey xadi mii ab taawam lépp kere ban koy joxe dan ma laaj ba xam kii ñu koy jox noo ko gisee may leen dal na sama xel ñu yëkkati ko jox ko ko ci xol bu sedd ci kaw xalaat goo xëy laaj dan ma xalaat ma rafet la ko ah waaw ma rafetlu ko goneem yee nga xañoon na ma dénk muy Mouhamadou Mamoun réerawul xam na ne seen bàyyi laa jox na ma cër bi ñu war a jox cër bi manqué ci genn wet manqué ci genn wet gone yin ma joxoon laa wax gone yin ma dénkoon li leen war ñu ngi koy def ci man waaw léegi nag bu ma ko toppee ay xisa yu bare bare benn bu ne dama caa dugg ci benn rek moo tax ma tënk ne fab bis bi yëkkati ko jagleen ko ko bis bi nag bis la boo xamante ne am naa ci yéene lool yéene gi ma ci am itam mooy suñu borom tabaaraka wa taala du ma xeeb sama bopp ba ne du ko ñaan déedéet lépp laa koy ñaan jullit bu ne war na ñaan suñu borom lépp bu mu ne man am ndongo rek laa wul maa ñaan suñu borom lépp déedéet man suñu borom dama koy ñaan mu jéggal mbooloo xeet sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la tàmbalee ci aadama ba ci ki ci mujj faatu Seydina Mou ci xeet la ak ñiy dund ca faatoogun kenn ko nu ba faatal suñu borom may la jéggal man loolu laa fas ci bis bi ngir jëm yàlla tabaaraka wa taala ma xool ci kaw suuf ne man de gisuma ku ma gën a réer jàngalkat alquran karim yi ak yëkkatikat xasaay yi ak duruskat yi gisuma lu ko gën a suuf faaw ngeen may ñu ab diir ñu àggal ndax bis bii day bis boo xam ne dama cee yaakaar njëggalu su borom ci kaw suuf ndax waxtaan ak suñu Bassirou Touré mën na ma yow de jàngalekat yi nga ko jagleel fu nekk yërmande yàlla dana faj te aju ku fa jógee itam ku fa jóge sa aju dana faju suñu Bassirou wax na ma loolu kon nag jàngalekat alxuraan yi am na ci ñoo xam ne bëgg naa leen jox ay kaamil jàngati xasaay yi am na ci ñoo xam ne bëgg naa leen jox ay xasaay al muqaddul kubra loolu jooju yéene am naa ko am na ñaar fukk muqaddul kubra fii salaatal bu ñaar fukk ak juróom-ñett yoo xam tànn naa ko ngir jëmmi sëñ bu mag bi ñaar fukk ak juróom-ñett fas yéene koo joxe ngir jëmmi sëñ bi mu jëm ci gaa yi jàng alxuraan karim mu amaana yeneen ñaar fukk ak juróom-ñett yi fi nekk sëñ Bassirou Touré léeg-léeg day wecceeku li mu xaddimal kubra di ko joxe am na ku ne sëñ Matar njaay loolu dana ko def am naa ñeneen ñoo yi dañuy def wecc ko limu mu xaddim kubra fi salaat al di ko joxe ngir am bëgg ci yool bi ma amaat yeneen ñaar fukki ñaar fukki kubra ak juróom-ñett yoo xamante ne bërki démb ñaar fan ci weeru awra sëñ Amsatu Mbàkke yàlla na yàlla guddal fanam man koy cëru béer moom sëñ Sooy Mbàkke radiyallaahu anhu bi ma yebal Ziguinchor le 2 avril ci bisu xasaay bu fexe woon ma amoon ay muqaddimaat ay paquet yu ma yoroon ak benn ëmb bu ma yor benn takk bu ma yor dem Kolda fanaan fa fàtte fa takk ba yóbbaale paquet ya Ziguinchor bi ma ñëwaatee jël takk bi si kaas euh, Kolda ñëw ba ci kër gi xool ko mu ñaar fukki muqaddam kubra ak juróom-ñett fekk génnoon naa ñaar fukki juróom-ñett ma ne ñaar fukki juróom ak juróom dinaa ko joxe ngir jëmi seen bi waaye ñaar fukki juróom-ñett yi dem ba Kolda dellusiwaat damaa bëgg mbooloo mi ku ko ci mën a weccee ko ñetti téeméer laa ko weccee ko ku ci mën a weccee ko ñu dolli ko ci li ma doon li li fi nekkoon ñaar fukki juróom-ñett ma jox ko seen i daara alxuraan yóbbaale ko seen daara yi ngir yàlla wàcce yërmaande ci ñun wàcce ko ci xeet Seydina Muhammad sa la wasallam ku ñetti téeméer laa ko ko ku ci mën a wecciku na ko ci wecc ku ci man benn na ko def ko ci man ñaar na ko def koo xëy yoroo ko ci am yéene jiitam boo ñëwee ne ma lebal ma ko ba gannaaw suba insha allah mën naa la ko lebal mën naa koo joxe sax lépp ngir jëmm sëñ bi waaye nag damaa yéene xeet bi ak ñi fi teew itam tuyaaba ji gën a yaatu rek laa ci jiglu waaw kon dafa ci tënk téere yi nun ma roqe ya roqe ya demal indi joxal ma ndongo ñu indi téere yi indi kaamil yi indi salaatu nabi yi fii yépp ñu teg ko ci taal indil ma laaj koloñ yi waaw indi ma laaj koloñ yi moo fësune koo joxe ngir jëm yàlla tabaraka wa taala ak seen seen mag bi waaw ma yépp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbooloo mi maa ngi sant bu baax di leen gërëm Euh, wax ji nag du gudd ndax lu gàtt rek lay doon ndax aboo mii sama euh, rakka waaye boo gisee mu jaar ci yoon woo xam ne yii yoonu sëñ bi la nekk ci xasaay yi sonn guddeeg wëccëg daa ko def daanaka muy sama muy ndax lu lu ma def ne bu fa nee rek ma ne ko war a def lu ne bu fa nekkee rek moom laa ko sant mu def ko ndax bu fekkee ne da nekk gone tàmbali di dem di dem di dem ba tege ci yoonu sëñ Touba xasaayit yi ak alxuraan ah fu lu fekk nga nekk ci lu baax guddeeg bëccëg di ci yeewu di ci di ci sonn bu boobaa déggoo maanaam lu la waay defal da ko def rek waaye déggoo mënu laa mënu laa jot sant ko bu baax a baax a baax te gërëm naa ko ndax yoon yoo gis mu jaar ci moom gërëm ko sant ko rek laa ciy man li ma ci wax moom du bari waaye xam naa ne moom sama gërëm daal moom dana ko am ndax bu fekkee ne bii déggoo sa taa taaw bàyyi mooy eh, topp mooy mel na sa baay ci yow boo gisul bàyyam te gis ma te war a am ngërëm ci bàyyam tam raw ko am na ngërëm loolu gërëm naa ko bu baax a baax san naa ko ndax yoon yu mu jaar yoonu lislaam la jaar bëgg sëñ Tuubaa guddeeg bëccëg jàng xasaay di jàng alxuraan ah, loolu la ko koy jëf sant ko rek lañ ci sant ko rek moo lay war léegi la wóor ne daal sant naa ko moom naa ko asalaamaaleykum. ak bëri ci géej gi barke barkeb téere jii tax na Sëriñ Tuubaa ci kër gi moo ko ci bind nee na benn nee na muqaddima ci akbaru dala maa ngi koy ñaan mu doon ngërëmul yàlla la gën a la gën a kawe na doon téere ji ngërëmul yàlla la gën a kawe na ko def sa muqaddima muqaddimat kubra bii mbégum rasulullahi salaam ma gën a kawe mu gën a kawe na nga ko def mu na nga ko def ci téere bii wenn araf bu ne mu ne na nga ko def muy ëpp kóolute àdduna ak àllaaxira amin yaa rabbal xala foofu la jeexale téere bi am mu leen muqaddimal kubra fu mu fanaan moo gën fu mu fanaan dama am yéene ci mbooloo mi jeex na wala jeexagul jeex na waaw waaw ñaar fukki juróom-ñett rek la war a doon kon baax na sax bu kii sax dugg duggal naa ko ci biir léegi kon ñoo ngi delloo di saare tey sant tey gërëm tey jébbalaat suñu delloo suñu borom suñu jëmm ji sëñ mag bi ak ak i taalibe ak jullit yëpp itam kon kaamil yi mu xàddoon Kubra yi sëñ Cheikh Diouf am micro bi damaa am yéene sëñ Abdoulaye Diouf mii day kenn ci man def naa ko dëkk ci koñ moom xam nga ko moom li ma seq ak moom moom ku ne xam na sëñ Abdoulaye moom sama xarit dëgg la moom waaw kenn wérante ko ci kaw suuf moom rawatina fii ma dëkk moom bu ko defee ma am ci moom yéene joo xam ne mën ma koo fay ma bëgg mu fab ñaar fukki kubra ak juróom-ñett joxal ma ko jànkata alxuraanu karim yi loolu nag fa ma ko wéer itam wéer naa ko ci xaritoo waaye ci moom laa mos a gis mu def cant goo xamante ne ay doomam danoo wàcc alxuraan mu ne def ak cant ngir sama doom wàcc alxuraan benn yoon la mos a sant ci jànkat yëpp ku ne xam ne sant di sant at mu jot ngay sant benn yoon boobu la mos a laa mos a gis mu def cant ci xaw ma dana ko defaat xam ne mën naa mu defaat mën naa du ko defaat waaye moom daal laa gisagul mu ay doomam wàcc alxuraan mu wooteeg cant waaw ku gëm alxuraan la ànd gi may ànd mu soññ na ma di ko yóbbu ci jàngkati alxuraan yi ngir mu xamante ak ñoom mbir yi yaatoo yaatu ci xóot la waxtu wi laa bañ jeexal waaye kon naa ci dugg ci lu bare bare waaye ñaar fukki kubra yu juróom-ñett daal bëgg naa mu joxal ma ko jàngkati alxuraan karim ñu fasante ko ay këlëri waaw boo ko yëkkati leen xasa itam waaw bisimilah bàyyi seet seetal ma alxuraan ñu yëkkati asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi sant suñu boroom di julli ci sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbokki jullit mbokki taalibe yi fi teew yépp di leen ndokkeel bu baax ci guddi gu màgg gi ak jotaay bu tedd bii di jaajëfal kàddu yi fi jëf yi fi jóg yépp tàmbalee ko ci Cheikh Mouhamadul Bachir Touré waxtaanañ ci xososiyaati nabi sallallahu alayhi wa waxtaan wu matale waxtaan wu bari njëriñ ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal suñu borom gën ko yokk ba yéeneem ci yoonu maamam bi àgg di nuyu kilifa yi fi teew yépp kon jàngalekati alxuraan yi bindoon Euh, muy sëriñ Abdoulahi Mbacke dañuy lim ba noppee ñu joxe ko am bu kun rek dañ koy jox. waaw kun tudd rek. kun tudd allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin sahibil kawthar wa sallim wa ala wa sahbihi wa jal bi jaayi ma sadara minni kal على سيدنا ومولانا محمد صاحب الكوثر وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاه كل ما صدر مني كالجوهر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الكوثر وسلم عليه وعلى آله وسابي وجل بجعل كل ما صدر مني كالجوار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب اللواء وسلم عليه وعلى آله وسابي وجعلني بجاه محمودا في الأرض وفي الزمان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب المنصر وسلم عليه وعلى آله وزابي وجلي بجاي في دار الإسلام ذر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سايب المدينة وسلم عليه وعلى آله وزابي وجل نفسي بجاي رانية مرضية مسونة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سايب المغفر وسلم عليه وعلى آله وزابي وقلبي بجاي سيدنا وسلم على سيدنا ومولانا محمد àgg ci foofu nag gannaaw yàlla dañoo defal tawféex bu toll ne sëñ Abo dara jaale ñu joxe xasiida ba noppi ñu amaat sansu joxe alxuraan kon loolu day firndeel cofeel gi ñu am ci alxuraan am ko ci ñuy jàngale alxuraan alxuraan sunu waajur daf ko bëggoon lool yàlla xeer ñu ci kiñ ñu tuddee itam bëggoon alxuraan ba tabaxal sëñ Tuubaa fii ci Tuubaa gi daaray kaamil ñu denc ko fa muy Cheikh Abdul Ahad ñuy roy ci ñaari jëmm yooyu moo tax ñu tële alxuraan waaye ñu bëgg alxuraan bëgg ñooñu alxuraan moom sëñ aboo mii nag di ñu ci dimbali bu baax bi ñu ñibbisee fii dëkk ci wetam muy sunu wëllëre li muy bëgg wax ci moom nag ñu may ñu rek ngir jëmi yàlla jataay bi yàgg na waaye mënuñu koo ñàkk wax ci moom ndax ay kàddu yu cant la kàddu yu seede la te dëgg la te wér na itam te mat nañ ci seede ndax ñoo nekk ak moom taqoog moom guddi ak bëccëg muy magum lislaam di magum taalibeb sëñ Tuubaa di ku lewet lool di ku baax lool di ku yaatu lool di ku am yitte lool ci nit ku baax sëñ Abo gone lu tuuti tuuti mën na koo yendal fi barab mën na koo naaje fi barab ngir fonkam doomu aadama ak bëggam doomu aadama rawatina ñooñ daara ak nit ñi nga xam ne dañoo sax ci lu baax di liggéeyal sëriñ tubaa muy imaam yi ak ñuy waxtaane sëriñ tubaa ak mboolem ñu baax ñi ci dëkk bi yàlla dogal na bi ñu ñibbisee ci dëkk bi ci yitteem ju kawe moo ñu nemmiku ba agsi fa kër ga jël kër ga def ko muy këram yàlla def na koñ bi ñu bokk dëkk amu fee kenn xaar ma yàlla ñëpp jàmm la seq ak ñoom aw yiw la ëmbal ñëpp moo waral mu sos bis bi nga xam ne daf ko jagleel salaatu ala nabi te mooy alxuraan mooy xasaayit sëñ tubaay seet fii ci koñ bi ay soxna yoo xam ne dañoo nekk fii di liggéey ci seen alal mu fexe ba ñoom ñu tënk ñoom ñëpp ci di julli ci yonent bi sallallahu alayhi kon mënuñu lu dul di ko gërëm di ko ñaanal li nga xam ne woote ne ko sos ko tàmbale ko daaw te ku ne xam ne ne ji ak yokkute am na ci suñ borom bàyyi ko fi ay ati at mu yàgg koo woote ñu yàgg koo ànd ak moom te ci barkeb sëriñ Touba li nga xam ne suñ borom jib na ko ñi nga xam ne ñi ngi jëli ci yonent bi sallallahu alayhi yàlla bu ko ci kenn ëppale moo ko njabootam ci barki borom Tuubaa xam naa nag sàkk woon na ci ñun xasidak bismil ilaahi lazi al quraanu xad nazala ñu yëkkati ko rek mu ànd ak ñi nga xam ne ñoom lañ doon décorer alxuraan ji ak xasaayid ji bis bi nag wax dëgg yàlla ñun suñu bis la fan yii amoon nañ ay yitte yu bari yu ñu war a dox waaye sañu ñu koo doxi ndax këram gii ak sunu kër gii genn rek la moom yitteem sunu yitte la buñ soxla woon ñu ub kër gi itam daneen ub kër gi am na doo ñëw ci moom ndax loolu dañ koo gis ci moom moo waral euh, ñëwunu fi ngir jàng dañ fee ñëw ngir taxaw bis bi rek am nañ fi ay gan yu tedd yoo xam ne insha Rabbi taala ñooy jàng jataay bi kenn ku nekk dana fi yëkkati kàddoom xam naa xasida googu lu gàtt la moom lañu ñuy yëkkati delloo ko njukkalu sëriñ yi mu doon jox alxuraan yi ak xasida yi bismillahi arrahmani arrahim bismil ilahi allazi alquran xal nasala من اعتدائي وأرجو عنده نزلا بسم الإله الذي القرآن قد نزلا من ابتدائي وأرجو عنده نزلا سبحان رب الكريم جاد لي كرما بأن ألاسم قرآن الخدا خجلا من كان لله كان الله جل له ومن توسل بالماحيل قبلا الله صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء لله خطبت أيضا وهو يغفر لي ذنبي ويستر عيبي بالذي فضل له خطابي وتاتيني إجابته دنيا وأخرى ولا أبقي بي بدلا هب لي مرامي وابدون عنان ولتكفني برسول الله كل بلاء xabli maraami waabuduna anan waltafini bi rasulillahi kulla bala iyaaka asalu ya rahmanu kawniya fi دنياي عبدا خديما قد حواني حلا لي جد بعلم وسعي لازم أدبا ولتكفني نقد عهد واسفل للعللا رد للبرايا وسخلي ما أشاء أبدا من خير مكر خفي واكفني الخجلا خطني عن الشر واجلب للخيور معا ولتكفني الخزي والأقدار والوجلاء ملك يميني وقلبي ما أكون به كالبحر جودا وفيضا واكفني الكسلا اجعل جميع الذي يكون لي أبدا عونا على فعل ما اخترته عملا نصف جنابي عن الأدناس جملتها ولتكفني كل شيء يوجب الخللا اليسرى حقق الأمل لحب جاه رسول الله سيدنا أن لا أحاسب يوما يفيه الزللا رجوت أدوى فما قد ساقه هرم إلى صغير من مرحي خير من بسلا حمدتك اليوم يا من لا شريك له فكملني به مثل المرى الكملا يا رب صل بتسليم بلا عدد على الذي كونه خير الورى حقلا محمد بجميع الآل وارد به عن صحبي والتجم لي عندك النزلا محمد بجميع الآل وارد به عن صحبي ولتدم لي عندك النزلاء يسر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير ولا لعين لسواي مدبرا بما على شهي يدوم دبرا maxa tawajjuhal makaarihi liyaa baaxil xabaabi zikrihi waxwa liyaa anhu raditu waxwa an iraadi bila makaariha wala amraadi radda li xayri jihati saytaana من طيب الممر والأوتان فر لغير جهة اللعين يسوق لخيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي صفت وصفت بي توفيق هاد خاده إلهام خط أبديالي مالح بهام بدت لي اليوم برب خيب عازني ممن خلو عيب لا يتوجه لنحو مطلب عني محت مكاره وتعب سعادتي بخير محو كتبت وكوني العبد الخديم قد طبت شكر لي ميسر العسير مختاره لي بلا مسير سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين